xadiimi tey ma fentati bayitim ñal sona isatu mbakke ci kayitim bisamil xadiimi tey ma fentati bayitim ñal sona isatu mbakke ci kayitim mooy sona aisatu na gaawaani bintul xadiimi mafsahu zamaani mooy soxna aisatu na gaawaani bintul qadiimi mabda'u zamani maam astu gaawan mbakk bintu seexul xadim yal na sunu borom dolli ay leeram barke borom tubaa di doomu suñ caa boo xam ni jëmm ju tedd la suñ caa mi nga xam ni mooy waajuram fonkoon ko lool ma nga gànnee àdduna ca gànnaar bi mu gànnee àdduna sëñ Touba daa bég ba woowaa tànt bi daan ne ñu wuti gëléem ñu ñëw mën a loj leen gëléem gi ñu loj ko mu ne nañ bégal tànt bépp ndax suñu boroom xamal ne ma ni mooy umul mu'minina weer wii nuy seenu it buñ ci buñ ci buñ ci yegg see jàmm na ko màng woor ko ndax bokk na ci ñiy teral ba weer weeru koor wi ñëw. léegi nag bi loolu amee soxna si nee na di ko sëñ bi yónnee loolu ñu indi ko nee na Sëriñ Tuubaa ci boppam wallaahi asim moom ko nekk di naa ko xat nee na dafa jël baaraam mu sànq la jëm ba dugal ko sama gémmiñ bi dama xaysutu xanaa di nga woor weer wi ma saar Sëriñ Tuubaa moo doy waar diir bu amagul ay bés ci biir néeg ndeyam nga di ko woor la ñetti fan lañ ci teg daal di um. wax mag ñi ne soxna Xadi Jóob moom kat xam ne yéen a ngi moom waaye fu leen yoon dobe fu leen koor gi dobe xaysutu moom mu def mu mën ci def maanaam mu woor a ndax fekkoon na sëriñ bi am gileem bu mag gu taaru goo xam ne gànnaar gépp dañ ko daan yéem muy gileem gu weex waaye keroog sëriñ bi daa santaane ne gileem goog gi nañ ko defar ngir terale ko gan gi nga xam ne moom la ko yàlla wërsëgale gan gi njëkk ñëw mooy Aysatu Ummu Muminiin keroog la ko jox tur yi ci jotaay dama bëgg ngeen dem lewatal ma sama gëlëm gu nopp weex boobu ma bërale ko ñu fi nekk ñëpp waaye bu ëllëgee nañ moo nañ ko waajal yóbbu ko dëkk sama dëkk ba ñu wax daaru ma ko sama dëkk ba ñu wax daaru naan waaye bi ñu jógee bay dem sëriñ bi da leen wax ne eh, gan goo gi ngeen yor jëm moom Tuuba day am na gan goo xam ne mi ngi ci yoon wi di ñëw te soreetut bu agsee moom gan koo gi bokk na ci ñu koy teral ndax soxna saa ngi gën jamono fukk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu soxna si moom a nettali ci lamiñ moom ndax euh, nee na keroog sëñ bi jot jotaay loolu di mag da leen wax ne damay am ñaari gan genn gan gi moom mooy terul beneen gan gan gi sëriñ bi doon wax nag mooy weeru koor nga xam ne ñaari fan lañ ci teg ca ñetteel ba koor gi teru koor googee soxna su Gawane ko màng woor ko ba mu jeex ànd kook mag ñi ci ndigalal sëñ Tuubaa ñu ko soxna daal di yónnee woolu ñoo mooy leen gan gi laal na wax fii mooy ay surtout ku mil moomu ñëw sëriñ Tuubaa moo ko njëkk a wax ci kàddu mu ñëw moom mooy teewlu soo geneen gan bi di char ramadan moom foofu rek mu doy kéemaan waaye loolu du du yéeme ci doomi Sëñ Tuubaa biñ ko indee itam ba jëflanteeg moom ci ni ñuy jëflanteeg ku gane jamono ba ñu indi la jox ko aw tur ko fi ñu jaarale doomi soxna yëpp mu jàng alxuraan teel ko mokkal jàng xam-xam ba géeju ca soxna su moon góor ak jigéen la raw na ci ay mayam fukkeen ak gul mat na soxna su man góor ak jigéen la raw na ci ay mayam fukkeen ak gul mat na am nay ngëneel am nay xikam am barke am nay maqaama dem na dootu jëkki moo njëkk a feeñ ginnaaw tukkib sëriñ bi moom la andil ñu muy sëriñ jëf tukkeem bi xamal ko yar ko fal ko ummul moominiin wël moominaati tey texe ñel gaañi diin xamal ko yar ko fal ko ummul moominiin wël moominaati tey texe ñel gaañi diin duyal ko may ko def ci moom mbootum rijaal tey soxna raw góor yàlla yañ tudde kamaal nga xam ne soxna su am ku fonkoon maam Seera Fall la bëgg maam Seera Fall lool mas dem ci Cheikh Ibra Fall ba mu demee ci Cheikh Ibra Fall ni ko sama addiyee bàyyi de laay jël si Cheikh Ibra daal di yëkkati la mu yoroon lépp jox ko fabu oto def ko ca boole ko sëñ mbenn Mbenda ne ko Modou Mbenda mu ne ko faal mu ne ko Modou Mbenda mu ne ko faal ba mu ñetti yoon mu a ko demal fa soxna su gaawante nekkal ma fa soxna su gaawaan daal di yëkki oto ba ànd ak bagage yi ñëw këram fanaan ba ci ëllëg sa mu ne xanaa def naa lopp de ñëpp ni ceel mu ne xanaa def naa lépp de ñëpp ni ceel ne ah, Moodu mbenn kaa dellu ma fa Cheikh Ibra te nekkal ma fa Moodu mbenn delluwaat fa Cheikh Ibra nekkal ko fa. waaye bi muy nekk njaareem nag e, kéemaan gu ne def na ko fa diggam ak sëriñ bi ci ay sañ-sañ ak jege gum jege woon boromam ak bari woon gum bari sañ-sañ te sëriñ bi nangul ko ko ànd ca ak moom sàllaa bu mosaan soxla dara ci sëñ Tuubaa ñëw fekk sëñ Tuubaa di bind. baa muy jàng baa muy julli da koy taxawu ne ko sama itte nangam ak nangam la ci aw ma jot ak di fi taxaw gaawal fajal ma ko sëriñ bi day bàyyi li muy def lépp fajal ko ajom jooju mu soxla mu dem sëñ bi ne ay sutu gaawaan di moom waaw yi day borom sañ-sañ sañ-sañ boobu yi da koo mos topp. ba bi demee 1912 1913 fekkoon na soxna su gaaw jubawoon di bind jox ko ndaw na ko boo demee joxal ma ko ay chutu di soxna su gaawan di ndaw li indee bataaxal bi ñoo yët ko soxna su gaawan bi ko soxna su gaawan ubbi da caa gis sëñ bi ne ko ay chutu kaay wuyu si ma maa ngi njaareem kaay seet si ma sax la ko wax maa ngi njaareem waaye soxna si nee na keroog ba mu jotee bataaxal bi boo ubbi ko ba gis ko muy mbindum Sëriñ Tuubaa da koo lar di lem ba mu sew mu sax ko daal di ko wan moom soxna Aïcha Mbacke bi ci àlka xam ne euh, boobu ci xanaa ay fukki ak benn yooyu lay war a toll te àggul yoroon xaalu mag mm-hmm. teel a ràññee sëñ bi lool mm-hmm. teel ko yëg lool mm-hmm. ba tax na loola ba mu amee sëñ bi dafa toogaat ab diir gisu ko dëggatu mu delluwaat ndar danañ ba taxal joxat leen dem leen dem leen yital ma ba sonn sonn si neen ba bataaxal ba ñëwee suñ bi da caa bind ajutu ana lu dox sa digganteeg boobu ba léegi mu ne la kaay seet si ma te gisuma la mu ne ba mu yëree bataaxal bi da caa bindal ci gannaaw bataaxal ba la bind moom soxna ajutu Mbàkke ne ko boo demee nga yit ko bu baax boo ko sa ñu ubbee daal di gis bataaxal ba soxna sa gaa mi bind ci gannaaw ne ko yow yaa ma war a seet si ndax man maa la gën bàyyi ci koo Euh, ba a gëjee gisee ak sëriñ Tuubaa ci saa yir yàgg na nga xam ne kon loolu moo tax yëg-yëg ba mu amul ci sëriñ bi teel sëriñ bi ak teel gu mu sëriñ bi loolu c'est pas le fait du ngi jégalu sax ci baat boobu waaye sëriñ bi bëgg ko bëggoon ak xeer gum xeeroon ci moom tax na bi mu ñëwee sëriñ bi da ko wutal barab ci keesu boppam sëriñ bi fiiroon ci moom lool bëgguloon sax ku koy xool di ko xoolaat ba ko xamoon soxna su gawaan xam nga ne ko ragaloon ay bët la saa boo ko ne jàkk di ko xool faw mën la xefal nit kenn du ko jàkkaaral moom di ko xool doon ko jege Sëñ Tuubaa doon ku bariwoon ay kéemaan diggam ak Sëñ Tuubaa euh, foofee la nekk ba sëriñ bi yëkkati ko jox ko ab jarbaatam di jarbaatam maam Cheikh mu jóge njaareem dem dëkk bu ñuy wax Gaawaan loolu sax moo indi astu kaawaan ja soxna sugaan kay wax dëgg yàlla dëgg nañ ci mag ñi ñoom ñu ne sëñ Tuubaa ba mu ñëwee gaawaan gane si maam Seex Anta boroom gaawaan bi mu yegsee ku ci ne gaaw bi si néeg daal di koy woo mu ne la ay sutu soxna ay sutu rekk déey ñu daal ubbi mu daal di jàll ki néeg soxna su fa la yendu fa la toog ba ngan nga mat mu delluwaat njaareem dafa ñëw ba mu ne jësub ci kër gi dana ana nekk aysa ana nekk aysatu ñu ne ko fii la mu dugg toog ci lalab soxna sugaar la toog mag ñi ñoo ma ko wax nag tey soxna aysatu yaari mbir say maye gàcceel may yaari pay tey soxna aysatu yaa bari may say maya gàcceel may yaara yëg fay say maya tax ba sag mosoo diggi tiim doomi sëriñ bi ndax yaa ko ko tiim sëriñ Saliou Mbacke itam noonu la demee moom bëgg ko lool ndeysaan daane wax Saliou Mbacke sama taalibe bi waaye daana wax Saliou Mbacke de xaw ma lu ma koy faye faye waaye xanaa ñaan sëñ Tuubaa rek mu boole ko ci ñu koy wuutu ci jamono waaye loolu de sëñ Tuubaa defal na ko ko ni mu ko bëggee woon ndax sëriñ Saliou doon sëriñ Tuubaa diir bu yàgg fees jamono del ba fi mu ne sëriñ Saliou ngi fi te loolu day loxol sama su gaaw nañ ko ci ndax daana wax ñu di ko dégg ñun ñi daanañu bàyyiloo xel sëriñ Saliou lool di ñu sant ci moom ñu di ko ñaanal mos nañ ko fekk ci këram ki ci kees di ko nuyu mun nañu xasaay yi ngeen di jàng di ma ko ñaanal de maa ngi ko yëg ci sama jëmm ji te loolu sans sugaar moo ñu ko digaloon ndax daa yor melaw sëriñ bi waaye moom da doon kenn koo xam ne nii ci waa kër sëriñ Touba yi ñépp a ko bàyyiwoon xel njabootuk sëriñ bi ñépp a ko bàyyi woon xel ndax ñun de ay tut tànk lañu ba ñu fay nekk waaye njabootuk sëriñ Touba yépp ñi nekkoon ca jamono booba ñépp ca kër googee lañ leen xame doomi Serigne Touba fekke naa nuñ ko jàppe woon ak fu ñu ko tegoon ak nañ ko jàppe woon ba ci sëñ Abdoulaye daanañu mu di ko loo kafe bu noppee mu naan ba mu xaaj ni ko defar naan xéwal sëñ Tuubaa yi tax na laa fàtte waaye yow de suñu taalibe sa aj sa ay gii dana neex dana barkeel naali lu ci naali sëñ yaa ko yeggale te du amum dog sëñ Tuubaa ku fonkoon maam Astu la ba ci waa këram yii kenn ku ci ne man siyaar bi ma mujj siyaar Cheikh Abdoul Ahad yal na yàlla dolli ay leeram siyaar bi ma ko mujj siyaar te mu neex ma lool mooy ca kër soxna sugaawaan la dama yalwaan si moom soxna si def ma noon bul wërati bul yal yorati pot di wër di yalwaani boo xëyatee jëlal pot bi ñëw ma defal la li ngay yóbbu ca daara ji bu ma xëyee ñëw jox ko pot bi mu too am na kalamba bu mu daan def pepp ba mu fees mu def ko ci boori rondal gi su ma ñëwee kook bi lay jël di tibb di sotti ci pot bi di sotti ci pot bi ba mu ba moo koy defal nii boppam daal ma jëlal nga yóbbu ca kër sëñ Thierno ndax sëñ Thierno moo nu doon jàngal alxuraan dama jël pot bi bokk ko ba génn ci buntu néeg bu mag wallahi al asim suñu laat maa ngi ko fekk mu téye loxoom ci laat bi génnoon ci ci ci permis mu téye ci bi sëñ Abdou téye noonu ma ne ma delloo bunt bi rek yem ci sëñ Abdou Lahat sukk bi ma sukkee nuyu ko mu ne ma ku baax ki fu mu toll ma ne ko mu ngi ci biir néeg bii mu ne ma yëglul ma loolu dara keroog man dara dàqalu ma loolu ci àddina yëglul ma ma dugg ci biir ne ko maam Cheikh Abdou Lahad day mu ci buntu buntu bii taxaw mu ne ma Abdou Lahad ma ne ko waaw mu dal di jóg ndeysaan boobu uh, am na fauteuil bu mu leen tegaloon foofu ndax waa kër Sëñ Tuubaa yi ku ñëwaa dangay ngay doo doo doo toog ci kaw ci suuf ngay toog waaye dafa mujjoon liggéey benn fauteuil teg ko ci wetu lal bi nga xam ne doomi Sëñ Tuubaa ju ñëw ci boobu ngay toog fauteuil boobu kenn daaw ca toog kenn daaw ca toog ku waa kër sëñ Tuubaa ko ñëw léegi mu jël benn morso ne ma fompal fauteuil ma fomp fauteuil ba mu set mu ne ma nee ko bismillah ma génn dal ni sëñ Abdoulaye ma sukk ne ko soxna si de nee na ma dal di jàpp loke bi ubbi sëñ bi dugg ma tëjaat dal di dem eh, daara ja mboolem kum jamonoon muy ay magam muy ay rakkam ñëpp jox ko cër muy jëmm joo xam ni denc suñu borom la yoo xam ne ngërëmal yàlla daa nekk si jëmmam ji mi ko xam ne dimbalakaat la koo xam ne képp koo ko liggéeyal sa sa borom daan la fay fii daan la fay fa lañ jëm Cheikh Abdul Xaadar ba ci Sëriñ Saalihu ba ci Soxna May Soxna Moomi ñoom ñépp foofa lañ leen ràññee ci kër googee kenn ku ne daan fa ñëw soxna si nag yàlla dimbaliwoon na ko ba moom sëriñ sooy bu moom xamoon na li ko galfanoon ba moom da daan jóg di dem di fekki sëriñ sooy bu sëriñ sooy bu moom bu fa daan dem ku ñuy wax daaru jaañ yàlla na sunu boroom dolli ay leeram moo daan jiitu nekk soxna si nekk ci biir oto bi otob sëriñ Abdul Xaadir ku ñuy wax Gede ja moo doonoon sëfoor ba daanaa ñëwit ca këram toog mu ne ma indi nga sa daabaa man ko waaw mu ne ma da jege si daaba ji jege si mu daal di dugg man ak moom dem ko soxna di jëm mu toog fa ba mu yàgg ma indiyaat ko ma ñëw mu ne ma yow de santal yàlla man ko alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ma santaatal ma sant ba mu ñetti yoon mu ne ma sa daaba ji dong laay dugg ak daaba yi si Abdou Xaadir loolee lii ma sant yàlla rek te lu ma ci am ko bokk dong yëpp jóge gaawaan ñëw dëkk bu ñuy wax ndulo ba sëriñ fàllu toxale ko ndulo indi ko Touba mu dëkk ak moom sëriñ fàllu lañ wax ne moom moo jële soxna Aysatu gaawaan ndula indi ko Touba defal ko fa néeg bu mag néeg boobee moom lañ daan wax néeg bu mag nekk ci ginnaaw ay ay raxmati muy ku yéeme dan ko bëgg sëñ Touba bëgg yoonu murit lool bëgg yoonu murit woowu ak bëgg ak murit sax tax na am na bisu korite boo xam ne dañoo julli korite ba ca ngoot mu ànd ak rakkam ci ñuy wax soxna Jóob Mbakke doomi sëriñ mag bi ak soxna moom yi mii ndeysaan dem na dem na day siyaare ji bàyyi Cheikh Ibra gannaaw bi sëriñ bi di leen laajte bi ñëwee ñu woolu leen sëñ bi ngi leen doon laajte bi mu ñëwee sëriñ bi dafa wax ne maanaam soxna tuuti Mbakke soxna Diop Mbacke soxna Diop mu ne ko Mbacke mu ne ko ana fu ngeen demoon mu ne ko dañoo demoon siyaare ji bàyyi Cheikh bàyyi Cheikh Ibra sëñ bi ne ana lu tax ngeen di dem te tàggawu leen ndeysaan ñoom ñëpp ñu sëgg sëñ bi ne bu leen ko defati bu bu ngeen ko defee dina leen caw ndeysaan am na ku mos a laaj ci mag ñi soxna si ne ko waaw keroog bu leen sëñ bi cawoon nag mu ne ko xanaa soxna Diop waaye man de bu yëkkatoon ab yar jëm si ci man asamaan ak suuf dana jaxasoo. te Mansour Gawane nag moom wax dëgg yàlla dafa bari woon yërmande lool yërmande la bari woon lool lool lool ñi mu defar ku mel ni Alaaji Gay Gabon Alaaji Gay Gabon kenn la woon ci maam Astou Gawane moom it ndax ba mu fay indi doomam jumu mu soxna Astou Gawane soxna si laaj ko ma nga ko jëlee Gabon soxna sa ma nga ganee àddina Gabon waaye soxna asugaan da ko ne nag indil ma sama turandoo wa nag mu indil ko ko mu doon tuuti xale bu ndaw mu indil ko ko maa sugaan moomu tey jii ñu ngi ñaan sunu borom yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko moom itam. ginnaaw loolu. jóge na fi ba mu fukki at nangam. feeñu ma ca gabang ni ma demal nga wuti ay tàpp yóbbu ko fa feeñu ma jàngale alxuraan ci barab ba ma daal di yónnee ku ñuy wax daaru jaañ xaalis daaru leb ca tapis melul na na mu ko bëggee woon mu feeñuwaat ma ci gabak ni ma jëndal tapis yi fii nga jënd tapis baax nga dem lal ko ci sa barab ba ma jënd tapis def ko ci avion bi indi ko lal ko ci barabam ba feeñu na ma it ci États-Unis ma xëy fajar mu ne ma xam nga maa mani tekk mu ne ma xam nga maa mani tekk mu ne ma mën a sa ndey soxna ay sutu gaawaan bintu Xaadimu Rasuul loolee tax nag ma xam ne man jàpp na ma jàpp na ma yërëm na ma te yërëm na ñëpp. socc yeeg mbiskit meeg tàngal jeek caaf leeg lépp ay junni junni la daan doon mu teg ko ci loxol jibisaar jibisaar di jënd lépp di indi ca kër ga soxna siy joxe moom da daan da daan da daan joxe rek. léppam baatin la kenn mënu ko waxtaanee te mënu loo waxtaanee mm. baatin bi nga xam ne ak sañ-sañ bi mm. te loolu tamit euh, ku am xel mm. di xalaat bu baax a baax xool fi ko sëñ bi tegoon moom mu ko daan wax nga xam ne kon am na jagle boo xam ne gi dafa am ci ndax daa yor melow sëriñ bi waaye moom da doon kenn koo xam ne nii ci waa kër sëriñ Tuubaa yi ñépp a ko bàyyi woon xel. di jëmm joo xam ne ku njabootu sëñ Tuubaa bàyyi woon xel la lool tàmbale ci sëriñ Fàllu magam ji tedd jooji e, Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Basiru moom daal njabootu sëñ Tuubaa gépp ko bàyyi woon xel bëgg ko lool fonk ko lool moom moom it mu bëgg leen fonk leen nekk liggéeykatub sëñ Tuubaa xam ne Euh, ku mel ne moom yombut. njabootam ga mu amoon di tax ñu dem da daan xëy bu xëyee la ko sëñ Touba daan defloo ñu ko cay gàllankoor mun naa ne mën di ndigal sëñ Touba damaa gën a lépp te gis naa ma xëy ñi naan yaay ñi ñaan ñi naan maam te liggéeyu sëñtubaa Touba bii ma def ko ni mu ko bëggee moom a gën a lay doom ak i sët ñaari doomam yooyu ñaari sët yooyu daa tegaloo dem na waaw kañ ma fi yekkee ak dongo yi dongo yi yëbuñu ma. te duñ ma sànjaab te li Sëñ Tuubaa ma gën a lépp liggéey Sëñ Tuubaa bi gën a ñor lépp loolee it ab cër la bu mag bu nu xam wér. Euh, li ñu gën a ñor ci mbiram nag mooy liggéey bi nga xam ne Sëriñ tubaab moo ko tegoon ci loxoom muy liggéeyub xasaa yi daa wax ne Sëriñ Tuubaa damaa woo ma ñëw mu ne ma Aysatu ma ne ko Mbàkke mu ne ma dama bëgg ngeen fonk sama xasida yi te di ko jàng ci di ci ñaanal seen maam soxna Buso ndax bëgguma fee soxna jaaratullahi Mariama Buso nekk ca barzaq di jàmbat ne sama faati Mbàkke moom bu ma bu ginnaaw ndax soxna si daa amoon doom bu jigéen bu ñuy wax soxna faati Mbàkke mu teel a wàcc liggéey sëriñ bi nag ne bëggul soxna jaara di jàmbat ne sama doom ji jigéen ji bu ma desoon ginnaaw yéen ñi sama njaboot gi jigéen na ngeen taxaw ci seen mbirum maam ba du jàmbat soxna faati mbakke soxna su gaawaan nag ànd ak bokkam yu tedd yu baax ya di liggéeyal sëriñ Tubaa ci xaside yi di ñaanal soxna jaaratullahi Mariama Buso yal nañu ko yàlla fayal ndax xaside yi fun ci toll ak lun ci am jëmmam joojee la ndax moo ñu daan wax yaay sama jàngkat dee ma jàngal nangam di ma jox ay xasida naan ma ko dee ma ko jàngal boo ko yëree ba mu ba miin ko dee ma ko yëkkatil di ma ko jàng moo ñu wax ci làmmiñu boppam ne sëriñ bi moo ma ne Aïchatu ma ne ko Mbàkke mu ne ko sama liggéeyub xasida yi denk naa la ko loolu nag moo waral naka jekk barabam moo doon barab barabu jàngkatu xasida yi mu fonk ko lool di ko bindulu di ko jàng di ko jàngulu di ci soññee daanañu wax ne dee leen ñaanal doomi si dee leen jàng xasaay di tey ñaanal doomi Sëñ Tuubaa yi doomi Sëñ Tuubaa yi ma leen di sant ngeen ñaanal leen nag eh, yéen rek laa bëgg dimbali ndax doomi Sëñ Tuubaa moom lu mu war a am am na ko waaye booy ñaanal doomi sëñ Tuubaa daa mel ni ku jël ab bal di ko dóor ci ab tabax bal ba ci sa kaw rek lay dalaat muy def di dindi tey falak di fol lii defal ko kun defal ko bam di jol nii lum ni na am yàlla ni waw ca saasa buy bég mu mbég tey kii nga am xasaasa lum ni na am yàlla ni waxu ca saasa buy bekk mu bekk tey kii ka am xasaasa fum jëm mu jëm fa lum falang mu dindi xamal ko mbootum xasidak si ndiidi sëñ Tuubaa ci boppam moo taalifoon sindiidi ni ko jàpp ni ko aysatu mu ne ko mbàkke mu ne ko digal naa la nga di ko jàng te di ci fasaaleel sa mbokki taalibe yëpp te di ko def sama kër gi te di ko def sama waa kër gii loolee tax na ba mu demee waaje ba bëgg a dem mu jàngalu ko ñaar fukki junni ak juróom-ñett geganoo ko kuréel ca mbaar ma lañ daan toog bésu màggal yendoo durus ba ngoon jot son di leen jox ay xasida yoo xam ne mooy xasida euh, dee leen durus euh, ab lim ci sindiidi dee leen durus ab lim ci waskurullaa wajjatu kulliya saa xurbin minallaahi xillan waxi ban wa saa sawxin ilallaahi loolu ban eh, daanaka xasida googu ci moom laa ko njëkk njëkk njëkk gise soxna sugaan ci moom laa njëkk gise gars yi dañ daan yendoo durus xasaayit ba ngoon jot bésu màggal yor yor màggal waskurullaa yi moom daawuñ ko amal ab ab moom la ñuy yendoo jàng daanaka ba ngoon jot mook sin diidi tànk ma sa ginnaawam it bi muy waajee ba bëgg a dem jàngalu ne ñaar fukki junniy sindidi ak juróom-ñett bayti rasul ci njaareem la jële fukki muswaar la jële fukki ngëpp ak juróom ak ñaar fukki ngëpp ak juróom-ñett ngëpp bu na ma def ko ci muswaar ñu def ñu def ko ci ñu def ci junniy sindidi mu ne ma fi jóge nañ ma ko geenal loolee ba ma xamee ba tey maa ngi di maa ngi koy def ci ndigalul soxna Baali mu nu yilif di borom kër ga bala ma ko bala ma caa yëkkati benn baat naa dem wax ko ko mu jox ma ci ndigal ma def ko ma noppee tegaat ko ci loxoom mu jox ma ci ndigal ma delloo ko ci barab ba fasal ci yéene ka njëkk tudd yàlla ba ka tudd yonent ba ka mujj tudd yonent ba ka mujj tudd yàlla yàlla boole nu yiw maanaam defare rek moo ko taxoon a jóg daana wax ne man asugaawan ku ma liggéeyal sëñ Bamba danaa la fay te loolu ay firnde yu bëri am nañ ko ci Sëñ Abdou Khadir ku ko fonkoon la daanaka moo doon léppam di ko taxawu ci lépp am na bis boo xam ne dañoo julli daa ñëw siyaare si barabu sëñ mag ba génn daal dina oto bi nag ma yóbbu ci Abdou Khadir sëñ Tuubaa damaa yab damaa yónni ci moom bi mu agsee ne ko sa bàyyi de moo ma yabal ci yow nee na sant na la gërëm na la sëñ Abdou Khadir daa bëgg lool keroog daanaka lu ne ci kër gi sëñ Abdou Khadir da koo fab ne nañ ko yóbbu soxna Sugawaan waaw def addiya sëñ Tuubaa bëgg lool yenn addiya daal yenn doo ñëw ba jant bi soo. kon nag loolu nag li bëgg ñu bëggoon sëñ Tuubaa ak daan liggéey waajur mu tedd ba moo ko may lii. Matar Sow benn lawbe bu nekkoon ci kër ga la yàlla dafa dogal ba mu wàccee liggéey dane daam musa Omar Gueye bu kenn des ci kër gi tey ku góor bu mu des ci kër gi na ñépp dem jébbali boroomam mataar mataar na ko ñépp dem gunge ji mataar sow yàlla dafa dogal bi ñu demee ba denc mataar ba ñëw ci néeg bu mag boobu ma lay wax néegu sëñ fàllu boobu mu ko defaloon fa lañ ko fekk ci fi muy jullee yoor yoor ñu ñëw fekk ko fa bàyyi musa egsi dugg mbooloo mépp dugg bi mbooloo mépp duggee mu ne Musa dem ngeen ba ñëw waaye Musa ne ko waaw Mbàkke dem nañ ba ñëw mu ne denc ngeen mataar mu ne ko waaw Mbàkke denc nañ mataar mu ne bëreet jóg taxaw daal ne tey la la mataar di xam lu mu doon bàyyee ay mbokkam topp ma tey jii lay gis njariñ la yëkkati loxo bi billaahi néeg bi kenn mën wax sa moroom dara léegi ñépp ñépp egg suuf keroog bon nag soxna si gaawaan day ñëpp bàyyim ñëpp ni ñëpp muy jëmm joo xam ne daal xam naa ne waxtaane ko moom lu am njëriñ la lu am solo la ko defee ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax ci yéene ji ngeen am ci bëgg doxaat ay jéego xeeñtu mboorum soxna su gaawaan waxtaane ko ba taalibe yi gën koo xam ba gën cee mën a jariñu ndax moom mooy ndeyu mbooleem kuy jàng xasida daanañu wax ne yéen de war ngeen a sant yàlla ndax Aysatu mu njëkk moom mooy umul na waaye man astugaawaat maay umul na mboolem yéen jàngkat xasida yi maay seen day ca doomoo naa leen ca loola wan nañu ko ba ñu gis ko mu jëflante kook ñun dem bàyyi kook ñun ñu di ko dund ca di ko ci sant kon nag maam Astou Gawane Serigne Touba mu sotti la woon daanañu wax ne yéen ñi Serigne Touba xéer ci man ngeen di ma liggéeyal war ngeen a sant yàlla ndax man Astou Gawane day képp ku ma nekkal danaa la nekkal fii ci àdduna ba ñëpp seere ko ba ñëpp ñee la bu yomal xiyaamee ma seere la ci kanamu borom Tuubaa mm, di ko sant bu baax Mbàkke di ko gërëmaat bu baax a baax a baax a baax ndax ñun dey euh, amuñu payam alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf soxna su gaawaan jërëjëf soxna su gaawaan jërëjëf soxna su gaawaan sañ-sañ ba yéem na ñëpp ngir lum tuddum mu ama am ngir yéeme yéeme kàddum mat sëkk biir mat sëkk sëkk waaxir jubóog boroomam may ko bootu xaaxiru jaajëfe sëñ bamba tana jaaraamam mam lamp lii ko gën may maqaama